bismillahi rahmaani rahim asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu di leen sant euh, ci teewaayu Serigne Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif ak euh, ci jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah Serigne si Diop jublu gi nag mooy ndigal loo xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke joxe na ko ñu war ko door ajjuma ji ñu jëm incha allah ñu war ko leeral nan la ko Serigne bi jubloo ak nan la bëgg ñu taxawee ci ba kenn ku ci ne rawatina ñi nga xam ne ñoo yeewoo ci dëkk bu tedd bi di Touba xam lan moo ji seen taxawaay kon dinañ jox sëriñ Cheikh Mbacke mu Serigne Abdou Latif mu leeral ndigal loolu ni ko sëriñ bi eh, jëmee ci taalibe yi ba kenn ku ci nekk xam ci li nga xam ne moo ji sa taxawaay. auzu billaahi mina shaytaani rajiim bokki taalibe yëpp. ñu jot ñu yóbbu Cheikh Mamadou Mountakha ñi nga xam ne mooy sunu lépp di sunu doyteef di sunu yaakaar mu ne mi ngi nuyu taalibe yëpp di leen sant di leen gërëm naka jekk li ñuy jiital suñuy wax te moo na koy waxloo mooy mi ngi sant taalibe yëpp ci xam ne cofeel gi ko taalibe yëpp amal ak doyloo gi ak yërëm ak yéene ji ak yàgg fi te wér ndax liggéey bi sëriñ bi da ko soxla waaye moom itam day wax ne cofeel gu tol noonu ak yërmande ji da amal taalibe yi cofeel gu am fu muy yem boo xam ne yërmande da ko làmb yërmande ji lépp mi ngi dello ci bëgg taalibe yi di xam ni ñu jariñoo ci sëriñ bi waxtu ñu ne wu dolli ko ndimbal ci sëriñ bi dolli ko tawfeexi sëriñ bi loolu waxtu li yëpp di leen xalaatam yëpp ak bëggam yëpp génn loolu yaari yëf na liggéey bi sëriñ bi dox na teel bi jëriñ jëriñ sëriñ bi nañu am tawfeexi sëriñ bi loolu mooy ak bëggam mooy yéenam mooy moom lay jàngal ci lay nekk di ko wane kon nag yàlla ci la jeg tawfeex sëriñ bi nuy tam defe ko nuy sëñ mën taxa bëgg nu liggéeyal sëriñ bi yàlla tafeexal na ban mën koo def yéen a ji mu yéen ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi tafeexal na ban dañu ak tafeex yëpp ba am ngërëmul sëriñ bi sëriñ bi nag ci biir loolu dafa gis jamono yu xat lu sànq jamono yomb mu bëgg waxtu nekk ñu gën a dellu sëriñ bi moo xam ne daa gis ne benn jot waruñu tal dara loolu sëriñ bi wax na ay waxam yu bari ba ci korig daaw bi ñu ko fàttali ko daa waxoon ne suñu yitte yëpp mooy ak nan am sëriñ bi man am sëriñ bi nag li ci gën a gaaw mooy jublu sunu borom jublu sunu borom wan gannaaw àdduna moo ne nag wan gannaaw àdduna du tax a bàyyi lekk du tax a bàyyi naan du tax a sol mbubb waaye su sunu xol dañuy dégmal sunu borom genn ci lépp àdduna ak li ci biiram ak i ak i naxeem ak i rafet rafetam bu ñu jubóo suñu borom nag ci lay ma a am sëriñ bi nga xam ne ñu ngi dellusiwaat ci bëgg taalibe yi dëgmal bi rek bañ am leneen bañ a tal dara loolu loolu nag moo xam ne daa bëggoon fan yii parce que yéene dundalaat nan ko daan ko daan dundale man fàttali ko daaw daa jëkk bu nekk woote na fi bisub xasida bisub xasida yi sax weesu na loolu jiitu na loolu lépp waaye daaw da cee boloon daaw jéeg da cee boloon bisub zikrullah defoon ko vingt quatre heures daaw moom defoon ko douze heures huit heures ci suba huit ngoon loolu nag la bëgg a ñu dina laat ko ba mu waxee ni ko xalaat ak ni ko bëggee ba noppi nag ne woon joxoon na ndigal ne mag sëñ ak sëñ Yuusu na ñaan dem ci saabas ñu wax ko ni ko bëggee buñ ci bañ juboo ci nu ñëw def yëgle bi taalibe yëpp yëg ko juboo gi moom mën a ndax noon itam nim la sëriñ bi rek lañ koy maa def amul amul genn bëgg sëriñ bi terul dara loolu sëriñ bi mbir mu nekk sëriñ bi la cee so xool nu ko sëriñ bëggee noonu la koy defee noonu itam mbir mu nekk moom lañ ciy xool nu ko bëggee noonu la koy sante nu defee ko na ban waxtaan tam la waxoon rek lan bëgg gën a leeral daa waxoon ne dana bëgg ban àggee ci ajuma ji nu jëm nu def ko bis boo xam ne sikkar lañuy tudd yàlla lañuy tëdd njëkkee bàyyi fa def ko tàmbali huit heures ci suba ba dix heures ñaari waxtu moo bi bis bi buñ nappee dañuy def jàng xasiida ak jàng alxuraan jàng ko dix heures ba une ñu laf waajal julli gi buñ jullee ba noppi ñu dallu xewlu ba ñeenti waxtu mu jàngat ba juróom-benn waxtu ñu yeewee ko mais bu ñu ko defee boo ju muñu desee dañ koy defaat mu ne nag kon ni ñuy def mooy waa dëkk bi moom la bëgg ñu waajal ko dundal ko buñ ci àggee waaye man nga def ko ci xewal yi itam nu ca waaye nga defee ca waaye mane nga defee na moom dana fàggu ay xewal waaye nit ñi itam luñ man nu may mane rek na ko defee ngir xewal yi doy te xewal itam daa mën a ñàkk mënta ñàkk ci ku ci bis yi ñuy def ndax kuy saaku xewal da ngay joxe xewal moo tax mu bëgg ñu joxe xewal bu joxe xewal itam nee na buñ ciy soobu nañ fas ndax jumaatul tubaab yi la ko tuddee ajuma joo xam ne ajuma yi tuubaa la na la ko jàppee noonu la ko tuddee bu dee itam noonu la ñuy defewaat kon nag nee na bu ñuy tàmbali nañ fas bu ñuy jàng cib nawet fas-fas yi ñu daan am waxaan nañu fasaat ko muy nawet bu teel bu tey bu ànd ak yërmande ndox mu barkeel ndox mu jàmm mu doy sëkk ba nawet bi bu am barkeel ñu mën a liggéeyal sëriñ bi fasaat yi ci magalu Tuuba gi ñëw ñu magale ko ci jàmm mu dal mu tey te yàlla def ci jàmm te sëñ bi nangul na ko lu ñu ca def ak yéen a jën ca mais loolu bu ñu ci bis ba ku ciy dugg na nga fas fas ñaari fas yooyu waajale ko ko bu ñu ci bis bi nag ni mu ñu defee ko jox na sëñ Yuusu mi dina gën ko leeral daara ji dañuy ñëw baasaat baas fañ na baas na yónni na ma ci Amsa dem naa ca léegi sëñ Amsa bu ñëwee ci baas boobu lay waaye bas bi waa daara ji ñenn ñi nekk ci kër sëñ bi jànge fa ca sëñ saalum sëñ bi jàngal nekk fa ñu des ñëw ci bas ba yi bas ba am sa faree nekk ak ñiy durus ak kuréelam ba yëkkati waaye dana fekk kuréel daara ji ma nga fa bu ñu amee nag yeneen kër yi wër jumaa ji itam di kër yi sëñ kër ña waru sëñ Tuubaa kër gu nekk waa kër gi luñ man ci dundal ko ci base nit ñàkk fa di tudd yàlla di jàng ñëpp boo ànd doonal bis bi ñu defee noonu Baay Faal itam dañ nekk ca nekk ca penku jullikaay ba foofa la ñuy nekk ak la ko jege lépp ak la ko wër dafa la ñuy sikkaru bu nappee fa la ñuy toog buñ napp bu ñu soxlaa ci ñoom ñoo xam ne dañu génn ci toppatoo nit ñuy jàng ci xéwal yi ci joxe ndox joxe café joxe añ bu jotee ñu ñu ñu nekk ci loola ñuy jàng ñoom ma ñaatal dara loolu jàng alxuraan ji itam niñ ko daan defee ci yokk yi ci nañu jàng alxuraan ndax bala ñu jot ñu defaru julli ñu jullee ba noppi buñ fa ne xewal fa la ñuy xewloo bu ko defee waa daal ji itam man ma ko waxoon bu ñuy jàng base boobu dañuy jàng ak ci biir kër ga biir kër kër gi man ki kër sëñ Tuuba suñu ci base ba lay nekk ak ñoom àndal fa fa war a ñu dundee bis bi keneen ku fay fay nekkee nag ci kër yi kër yi sëñ Tuubaa yooyu wër jumaa ji boo fee nekkee mel na yaa ngi ci barab bi ci barabu sëñ bi barab yi sëñ bi ñu bëgg ko noonu lañ koy waajale ni ñëpp waaj nag bu ñëwee itam ànd ak yar ànd ànd ak yéene ju ju mat ñu daan waajal di mbirum bi ñu daan waajal bi si la sëñ bëgg ñu defee ko ni sëñ bi itam amul jenn yitte amul jenn xalaat amul jé benn pastéef pour dimbali taalibe yi bañ dem rek bañ jariñu ci sëñ rek ñu def bu sañoon taalibe nekk da nga di yëg sax fexe sëriñ bi ci ci gindigu ci sëriñ bi ci bañ a def ci am gën bëgg góoru sëriñ bi ndax li ma waxoon léegi bu nekkee la ñuy waajale am liggéey booy liggéey wàllu yëngu te di ca ñaan barke bëgg nañ nga am ca barke bëgg nañ ko war a delloo waaye sa xol moom la sëñ bi jiitu rek sëñ bi rek nekk ci ndax waaye ndax li ma leer na bëgg sëñ bi mooy bëgg bala nga ko mën a def da ngay bëgg yàlla waaye bala ngay mën a am yàlla nag am sëñ bi kon ñooy ñaar dañoo mën tàggoo nañ ko xam te dégg ko te déggee ko noonu te jàppee ko noonu léegi nag nañ waajal bis bi ci wàccaay bi nag kon dinaa jox sëriñ Yuusu lu nga lu luñ wax lu ci des lu mu war a mottali mu mottali ko lu ñu war a leeral mu leeral ko ñu bokk ci soobu bokk ko defe ne ko sëñ bëggee maa ngi ñaan nu itam noo am tafeex sëñ bi ba man koo defee ni ko sëñ bi bëggee ndax sëñ bi noonu la bëggal njariñ rek noonu la bëgg ñu jariñu kon nag nanu sëñ suñu borom dimbale ci barke sëñ bi ban defee ko ni ko sëñ bëggee kon nag maa ngi maa ngi tàggu ñëpp di bàyyi sëñ Yuusu mu àggale kàddu bu ñu nappee ñu déggee ko noo xam ne ajuma ji ñëw la ñu ñaari koy waajal ndax excellent mu noppi te rek la alterné te ak ajuma ñetti fan a fi dox ataar alxames kon ñëw na ba noppi kon wàccaanam mbir maa ngi noonu wàccaa yooyu noonu yal na jëg tafeex sëriñ bi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu euh, jërëjëf euh, sëñ naa sama kàddu yi li muy jëkke mooy euh, ziar tey sant sëñ Cheikh moom sëñ Abdou Latif di kilifa ci man kon ndigalam moo tax may jottali ay kàddu te kàddu yi cant rek lay doonaat ak yeesalaat ak feddali ndax sëñ bi yàgg nañoo boole liggéey yu mel nii waaye naka jekk mu mët sëkk li mu doon nu itam nu xam ne suñ taxawaay weesuwut taxawaayu murit bu laxasaayu laa yasonalaahu ma amarahum wa yafaluuna maa yumaroon nun bu sëñ bi xasee joxe ndigal rek ci loolu lañu daa di jubali def ci suñ lépp ma bëggee ñu xam ne euh, lii tax a jariñu mooy teewlu gi teewlu gi moo tax waa Touba na nga xam ne képp ku yaakaar sëñ Touba dëgg la waa Touba la waaye Cheikh Mamadou Mountakha dafa am xaas bu mu am mooy lépp lu ngeen gis mu samp ko di ko def rek dafay loo xam ne nañ ko déggee dégginu wama aataykum rasulu fa xuzuuhu képp ku ko jàpp foo mën a ne ci kaw suuf njëriñ la na la fa fekk dëgg la waa Touba ñëw féete Touba war ko dundal muy àjjumay Touba waaye murit fu ñu ne àjjuma jooju mu fekk leen fa nañ ko dundal foofu def ci kem seen kattan ndax loolu du dara lu luy wane ne lii soppi jamono sëñ Tuubaa moo koy def ndax lii boo ko seetloo xam ne am na aw tur woo xam ne sax tur yi ko sëñ bi tuddee woon mooy sawratul bayda di li ñu tuddee révolution maanaam ab soppiku goo xamante ne lépp day yéwén lépp day rafet lépp day day day day leer nañ te deret du tuuru xat du damm loolu nag sëñ Tuubaa rek moo ko moo ko moo ko amal moom moo def liggéeyam bi ba mu sotti mel nu moom moo dem àndut ak kenn liggéey liggéey bi ba mu sotti bàyyee ñu ay ngànnaay yoo xam ne xasida yi rek dong yi ku ci góorgóorlu ci jàng xasida yi xamal ne moo féete kaw dajale armée yi ci monde bi yëpp di leen xeexloo ndax sëñ Tuubaa dafa gañe xare bi jox ñu xasida yi ñu takkook moom ci la suñu aaju yëpp di fajoo ci la suñu gàllankoor yëpp di dañee loolu kon di sàkk ay bis yoo xam ne dañ koy baril ndax ku ne xam ne ne toll nañ jamono joo xam ne yàqkat bi di noon bi di iblis moom dafa yokk rythme bi mu yàqee kon moom yitteem daf koo yokk ci yàq yi kon sëñ bii moom sëñ Muntaxa bu yokkee yitteem ci defar gi ak di dajale dongo yi ñuy tudd yàlla di di di di jàng xasida dafa dafa xam ne loolu mooy yoon wi ñuy may nu nu mën a mucc ci yàqu-yàqu jamono kon nan ko fonk rawatina nag nun waa Touba gii nga xamante ne euh, li wër jumaa ji ku nga xam ne ne daayira yi nekk Touba rek bu ñu dikkee ñu ànd du ñu xaj sax ci penc bi day mujj sax am na ay penc ci biir Touba yoo xam ne dañ koy dundalee foofu ndax ajjuma dañ fay julli ajjuma kon war faa xëy jàng fa alquran jàng di fa di fa tudd yàlla mu doon loo xam ne kon sëriñ bi dafa dafa wane yoon wi mu tàmbalee ci jumaa ju mag ji waaye fépp fu ab taaliba ne dana fa àgg danga naan sax fu laafab Seydina Jibril àgg ndigalam lii dina fa àgg loolu yàlla suñ borom defal na ko Sëñ Muntaxa kon nag ñu ngi tàllalaat loxo ñëpp di déglu it lii sëñ Cheikh wax ne togg xéwal yi moom bu ko kenn jombale sa bopp ndax donte ab super nga mën a togg xool foo xam ne ñu ngi fay tudd yàlla fi la gën a jege nga yóbbul leen ko loolu mooy liggéey bi njabootug sëñ Tuubaa gi it xam nañ ne ñi wër jumaa ji yëpp genn kàddu lañ am mooy kàddu sëñ Muntaxa mooy seen kàddu gis nañ ne saa bu ñu santaane bisub xasida nun yaatu gi ñu gis ñu amal nu ko ñu may nu ko ak lañ ñu fay fàggul ak lañ ñu fay defal loolu moom ku ne xam na ne kon ñoom itam kenn ku ci ne dongo ya fa nekk ak waa kër gi ak daayira ya ñooñu buñ ca jàppee foofu rek képp dina dundal kër gi loolu suñ ko defee dina mujj penc mi na mu war a riiree ak na mu war a feesee dell dinañ ko def te dina ànd ak dal dal gi daal mooy li ci am solo loolu kon mooy kàddu yi xam ne moom lay dolli sëñ Cheikh di soññaan nag moom waa Hizbut Tarqiyyah nu xam ne nooy soldaaru bis bi soldaar yi moom suñ buñ tal dara fii ak al ajjuma nu fexe ba dara bañ a sooxe ci sunu wàll ci bâche yi ñu war a def ci sonorisation bi ñu war a def di woo tamit ñi nga xam ne naka jekk noog ñoom du ñu ñaar benn lañu dañu ci daan jàppale mooy ñi nga xam ne dañ daan indi seen i bâche ñi nga xam ne dañ daan indi tamit seen sono ak ñi nga xam ne dañu daan jàppale loolu ñu ngi leen di tàllaat loxo ndax bis la boo xam ne bu fees dell ak njëriñ la boo xam ne njëriñu rek mooy li ci sëriñ bi jublu yal nu yàlla suñu borom kàttanal ba nu am melo wu tax nu mën a jëriñu ci bis bi ci barkeb Cheikh Mamadou Mountakha te lim ci fas lépp moom mu ji ak yàggam fi jiitu ci euh, ci dara ji Cheikhuna Ahmadul Xaddim barke borom Tuubaa jërëjëf. jërëjëf euh, sëriñ Cheikh Mbacke moom sëriñ Abdou ci kàddu yi leeral yu am solo yooyu jërëjëf itam. sëriñ Youssou Diop jëwriñu daara Hizbut Tarqiyyah ci fàttali ndigal lu Cheikh Mouhamadou Mountakha di fàttali ne ndigal li ajjuma ji ñu jëm lay doon fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai ak ajjuma ji ci toppaat di ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru mai kon muy ñaari ajjuma yi nga xam ne ñoo sësaloo muy bii ñu jëm ak bi ci topp ñu fas ko yéene nag defee ni ko sëriñ bi diglee am ci yitte ak pas-pas fas yéene defee ko kem ni ma ko santaane di ñaan suñu borom ci barkeb Serigne Touba mu dajal ñu ci ak tawféexu Serigne Touba liñ ci def lépp itam mu nangul ñu ko te yàggal fi Cheikh Maodo mun taxaate mu ànd ak wér wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.